mais Dieyna euh, bu ñuy wax ak yow wala Eva on entend tout le temps yàlla yàlla yàlla Iba <laughs> du nga wala lan. du ma ko sax tey waaw wax ma rek expliqué ma nga da ngay da ngay jàng alxuraan déjà euh, déjà dégg naa ne ku ku bëgg julli nga <laughs> ah dégg naa en dehors de tes heures yi nga xamante ne yaa ngi ci biti euh, xam nga ne dañuy def ay gëstu. yow kay enquête ah, nga yow kay enquête lu waral loolu dañ la ko yaree wala da nga am benn iman boo xamante ne dafa nekk ci yow rek.

tant que heure julli jotul do am droit sol xam nga xam ni mu bëggee lu bees. ci ko da ngay xam heure julli jot ba nga yow nga sol yére bi dem rangé sama ginnaaw papa courage da say bras ne da ngay julli. def tiitaru. mais après boo magué mhm. les expériences de la vie. yalla daf lay jàppale ba nga xamante ni da nga nekk situation yoo xam ne da lay lenn yàlla moo la si mën a génne. c'est juste la foi en fait. ok mais quand on voit qui euh, nga xamante les mots di Eva ma tegee ne la jëy naa bu Eva en général elle est très euh, flashy euh, fashion xam nga soit bi et tout ça boo ñuy wax waxu jullit affaire est-ce que na xaw est-ce qu'elle nañ koo wax ma rek. tu as un copain. bah oui j'ai un copain. mais Dieyna dama fort ci Eva Eva dama fort ci wewu bëy ni que yow xale yu góor yi maanaam ñenn ñi dañ la doon jiiñ naan da ngay génn duudu fait des vidéos en en vrai mais il paraît que yow yaa ne sax xale yu góor yi maanaam jeune âge yi intéressé wuñ la yow daal na nek ci âge mûr yi manam ñi jege paa yoy noonu ah yow ay sugar daddy ngay wër ñu am xaalis ñoñu non dafa mel ni dégg wala Eva tombe la dégg. bon bala ñu may vaar. Hmm. bala ñu may var à l'avenir. dama wax ko wax de damay wax. Hmm. Euh, ce fut un temps. Hmm. non la don xalaatee. ok parce que euh, macha maturité bi ma am. mënuma woon c'était impossible ma nek ak góor boo xamante ne maa ngi ñoo âge. parce que li ma koy rawee dafay bëri parce que man duma nek ci logique histoire fan nga nekkoon lo doon def sa téléphone ki t'appelle j'avais besoin d'un homme bo xamante ni. Mhm. daf may jappalé ma dem ci kanam en fait.

c'est un homme merveilleux. Mm. Et puis, il y a un homme qui donne son bail. De Dohan Enfin, très sérieusement, on a un problème mm. Pour moi, l'homme est un infidèle. Respecte-moi. Firo. Firo, moi. Mm. Je Ne me respecte. D'accord, 100%, là, il dit la noyée euh, degré firme. Degré, c'est mon degré Disons 20%. 20%. Bravo.

tourner l'ENEN. qu'est-ce qui s'est passé da nga da jouer saison boobu rek après on n'a pas fait appel à toi wala ça sa bopp mon réticence euh, def expérience boobu mu le temps bari nga ne daf lay jëlal le temps se liguer. c'est quoi exactement. enfin ñu ngi may woo si projet mais pour dire vrai je ne suis pas trop intéressée à bii nii. le temps. Euh, dara man ma da nga am problème ak Marodi. non du tout du tout. pas du tout dinaa ñi am ak Marodi problème bari nañ de est-ce que bi yow bokko ci ñooñu. est-ce que liñ la doon fay baax non honnêtement nak wax deug yalla man Marodi. Mhm. suma ma tay ci écran yi. Mhm. dama leen di remercier. Mhm. parce que formé ils ont été très gentils. te lépp lu leen waroon ak man def nañ ko. fay nañ la.

Il y a une réaction en général ci internautes euh, parce que à chaque fois bu may me man gis na euh, yi nga commentaires mais qu'est-ce que ça te fait exactement en général quand tu lis les commentaires à ton, à, ton propos euh, d'habitude c'est assez positif mm-hmm. ouais. bon c'est assez positif d'habitude hein. Mm-hmm. nit ñi pas ma Instagram tellement de messages mais doo tontu doo mais bon j'aurais aimé m'entendre mieux mais nous m'ont je leur porte dans mon cœur et puis amour bi mais en fait et j'en suis vraiment très très très reconnaissante. mais Eva tu n'es pas très présente sur les réseaux euh, Instagram euh, j'ai vérifié tes photos sont là-bas mais. Euh, donc le quoi <laughs> <laughs> euh, internet bon personnellement dans ma jox damay jox euh dama koy conseil bon c'est ton avis quoi merci beaucoup. c'est-à-dire internet c'est mm-hmm. tellement dangereux. Mm-hmm. gis nga nit. Mm-hmm. muy muy xamoo lan ngay dëgg président de la république. dëgg ñu génneel ko TikTok.

non trop donc différent. ce personnage <laughs> vraiment hein, ah euh, am na fa ah. personnalité c'est tout autre. Ah. alors il y a dina am euh, euh, détendre ci sa personnage une femme un mari d'aller ci sa personnalité en tant que telle a ko ben a bi saison c'est un amul ressemblance quoi. Mhm. non non impact. impact si. c'est un peu parce que sama yaay parfois sama yaay parfois daf m'a woo ne ma seen épisode yi mënu ma ko seetaan de. ak mhm. yooyu les ngay seetaan li les les les nii nii genre. Mhm. peut-être loolu hein mais après mais ne que, reproche moi je suis pas comme ça donc ça va. ok. Uh-huh. d' accord léegi Dieyna euh, ñi nga xamanteni à ton niveau donc euh, au niveau travail je veux dire donc amna ci yu bari yo nga xamanteni peut-être ay responsabilité la mais ak li ngay jouer ak nit ñi ngay dajee souvent euh, fofu aussi est-ce que dina am impact ou pas. Madame Digno Pertois, je suis fan, Kanye photo, machin. J'envoie tout le temps au bureau. <laughs> Et euh, d'abord, eh, c'est du star, <laughs> genre. Mais après, ça fait plaisir, hein Ça fait plaisir. D'accord. Alors, euh, Diana, une question pour mettre la les poser. Eva, Eva, posez-moi que Diana, ah, Eva la que poser. Parce que Diana, d'un côté vierge, tu une femme, un mari. La vraie Diana, qu'est-ce qu'elle pense de la virginité Ah, d'abord. Ah, c'est ça, non hein. kon delloo soriwul de. bëgg leerlu rek. en tout cas. Mm. loolu li ma la waxoon rek mbirum yàlla moo koy eu nit. répondre te aussi ku koy noonu pour pour pour suñu suñu suñu suñu suñu rakk yi en fait. Mm-hmm. loolu dul xool yàlla dul si xool nit. dëgg la. boo leen di li ma di conseil mooy ngeen garder seen virginité. Mm-hmm. mais bu leen ci xool ndey. Mhm. bu leen ci xool baay. Mhm. bu leen ci xool aada. Mhm. xool leen ci yàlla suñu borom parce que moo leen njëkk a tere li ñu yàlla tere bëri na. am na yu ñu ciy def. dëgg la j'ai mes ongles j'ai mes j'ai mes cheveux j'ai voilà. mais am na yenn yoo xamante ni. sabab lu ñaan yàlla moom moo dalil la.

tontul. honnêtement tontul rek. Assane. Hmm, Assane Tabou laa oh, woote de. du yomb nag mais jéemal rek. non je vais dama si lu tax. wax. waxal lu tax. waxal. xam lu tax. sama jëkkër. incha allah. incha

di nekk yow moom parce que euh, bàjjen yi dañuy toog ci buntu néeg yi di xaar. dès lors que ni may nañ ma ko tàkkusaan mooy sama kilifa. waaw. sama papa bu waxee sax mais man bu ñu wettee. Mm. dinaa ne ko lii laa bëgg. Mm. maanaam yow d'accord mën na ma nangul loolu. Mm-hmm. baax na bu dee mënu ko nangul. Mm. dafa bëgg dem. wala wala mais yow d'accord ci àndoo ci aada boobu. parce que l'islam ci boppam àndu si. Eva yang kita daw question bi te bëggoon naa ñu dellu si waat dama ne. tey jii am na ñu naan ñun ñiy digle sangaay sanguwuñu ba pare di leen dig sangaay comme dafa am jigen ñoo nga xamante ne dañ laa jël comme exemple dama bëggoon nga leeral leen ndax tey ji mën nga nekk ku affirmative leen man Eva ba ba may sëy xaw ma benn bok bokk mu leer santa bu la non da kenn yónniwu sama xarit nga yow sama xarit nga non non yow tontul rek après ñu jàll ci beneen parce que dama am beneen yeneen question. je passe. ay waay bul paase ngir yàlla dañ lay jiñ de. non mais xam nga gars yi dañ naan ci ndi rien consent. honnêtement. Hmm. très sérieusement. Hmm. ragaluma loolu. man tout ce que je fais sama diggante ak sama borom la. aw ma mbindeef bu ma si xool du yaay du papa la je. waaw question bi interne yi dimbale leen pour mu gën a leer Eva eh est-ce que tu es vierge. sama diggante sama borom la ak ki nekk sama futur jëkkër xamatuma ci dara ñaata copain nga ma sa am 5 cinq waata wala la ci depuis quel âge nga commencé am copain dama teel am farman ah kon yow yar woo de dama am entrée en sixième vacances entrée en sixième sama papa jëndal ma téléphone ma génn am faa ah si moo la téléphone les revers du, du, du, du, téléphone portable mais non parce que ça nga am

ni nga ragalee ne dafa melni euh xam nga jamono ji dañuy wax violence faite aux femmes ñu gis ni ñi ñu ngi leen di dóor xam nga cas bi nga xamanteni ni ba kii di loo ñaay xale bu jigéen bi dóor nañ ko ci kanamam ngi parce que nee nañ dañ ko doon jéem a violé ou des trucs du genre mais ni ma gisee nga ragal question bi noonu da nga mës a da nga da nga mës a bon est-ce que tu as déjà été victime d'un viol ou ñu ko doon jéem en ta personne. non jamais alhamdulilah. really ouais parce que d'ailleurs, regarde, ragal da nga euh, sexualité. mais comme toute euh, femme. non pas toute femme. Ah, parce que les femmes en général euh, y a une toute femme Nabou c'est une femme. Ouais, mais loolu homme là. mais mon devoir à faire sexualité. démb maa ngi woon ci ma copine, diw bàyyi monsieur diw maa ngi monsieur Diou. kon kay waroo mais mode mode mode mode de viwam homme. te blâmer wu ma ko ci critiquer wu ma le ci sentir lolo, lay def. mën na mën na ma gën man mi toog allahu a'lam